ana Moussa. Moussa. booy yow depuis la oo pour nga dem indi bëgg kale yi ma nekk foofu di foofu rek booy lu xew. loolu you ma tii last night. Moussa Moussa. Moussa wax naa la nga bàyyi di fenal xale yu jigéen ñi Moussa. oui tamit di fenal xale yu jigéen ñi. booy Moussa lu ma wax nii booy. bàyyi di ma jalos nii Moussa bàyyi ñoo yëpp jigéen yow yaa ngi jigéen ñi te sa fen sa motul yow jigéen booy fenal mu laa gom sa yow xoolal Moussa booy yow yaa ngi yang. booy jamono bu nekk nii ah ah. foog ñun taluñu yow yaa ko tal ñun si liggéey lañ nekk. yow amoo dara nga nekk di play fake life di fenal jigéen ñi. yow loo am dama dee am sama five ay sama post bi. Moussa ay xam nga daal ñu ngi liggéey. su dee waxee jigéen nga bëgg nga dem waxee ko fenal. dama kii yow loolu loolu bi jox na ko ma seet ma seet lii bi. booy fourteen bi moo fa de mooy si wala. maa ngi am oto bi sax Gasker Balaka booy every time jigéen jigéen booy gis time bi xale bu ndaw nga da nga war a try nga concentré si sa loolu booy time bi soo bëggee lifin fa nga am sa fake life bi nga mën a lifin da nga bëgg a soo waxee jigéen nga dem fële nga ne waxee ko foofu dégg nga su fine. maa ngi ok. si loolu nekk yaa ngi fine. maa ngi ok. suur bi. Aïcha. am naa loolu because Aïcha yi ñoo de gën a rafet indi si loo loo loo loo honestly Moussa laa tudd yaa tudd dama duggoon Amérique suma oto bi mu am problème gis nga GMC bi boo nekk di gis. oh ok boo nekk suma oto bi comme suma gastel bi ba laata so dama ko isi pour gagner fixement. oh ok so naka nga koñ bi nga nekk wala.

waaye kii suñu rakk ndaw la si garage so maa ngi gis mu ngeen dox tànk yi nga xam ne baaxul so dama bëggoon pour mu toog ma advice ko ñu waxal moom mu déggal ñoo wax because last time maa ngi doon waxam waaye dafa na maa caaxaan non mooy raay li problème bi ah la nga nekkee si dëggal nga fa ne jàmmal yow ëllëg nga nekk si mu eh, insa eh, kii Fatou ëllëg nga dem si Marie gannaaw ëllëg nga dem si Amina yow di sa problème. Moussa Moussa Moussa ana la la. booy because nekkuloo di dox comme nekkuloo di def lu baax. léegi lan laa nekk yow yow la dara yow xaj sax moo sax danoo tànn ay jigéen ñoo dëkk waaye yow yow ñëpp nga boole doon def ko benn. yow ni dëkk bi dafa ndaw léegi yow ñaan jigéen ñi nga nekk di topp noonu su gaa yi gisante wala ñu xamante ñu xamal la yow loolu looy wax. booy xanaa dégguloo booy Aliou gis nga kii lu mu la wax dëgg la nag fi nga nekk ñi ngi liggéey yaa déglu yaa ngi diile suñu liggéey bi yëpp pour jigéen booy ñun doo ñu yab doo ñu yablu. ñun suñu gisee ñuy ànd ak yow booy nga am lifestyle bi ëllëg ñu ñëw attaque suñu garage bi lu ñëw ah. booy benn dangaa mën a liggéey ak ñun nga bàyyi jigéen yi mënoo ko nga dem. booy kii amul neexal ba mu nekk nii tey bi soo suñu der mooy yaaxu soo gisee maa parce que ñoom ñoo bokk gisee loo xam ne nekkul di dox te da nga war a dégg. booy jigéen dafa time. lii du lifestyle bi lii du life bi waaye gis nga ñun lu ñoo try mooy lu ñoo amee xaalis pour teral suñu waajur yi ak topp ak dégg nga comme nay xaalis bi ñëwul de man bu ma nekk nii dem nii booy honestly fake life bi tamit mu ngi ko booy fake life bi moo dee strong xaalis bi booy. xam nga li problème man xam nga li problème kii sax soo ko ko laajee. xam nga li problème xam nga li problème xam nga li problème bi kii fake life am yow mburu sax mënu koo jënd. yow ku ñu nekk nii mënuloo jëndal sa boppam mburu maanaam. tey booy nga bàyyi maa rek booy nañ dem jëkkal suñu liggéey booy. loolu sax mburu bi jaaxaloo ko nañ dem jëkkal liggéey. sexto yi. booy yow oh, du da nga tombé woon oh. yow boo man maa la bàyyi nga naan ma lan. player nga naan oh, nga naan ma fii nga naan ah, ma lan. six six. Hmm. booy tey nag. non yow keroog keroog da nga tombé man tey dama la. booy six su rek yow tey. booy kii kii maa ko mun booy. doxal yow tey non tey dina leer wax naa la keroog da nga booy fii may boodoo keroog loolu ah. am nii. ah six. tey dama tey dama tey dama koo salaam booy doxal doxal. tebul tey amul bàyyil Moussa ma ne yow da nga xam ne dafa fay te yaa ngi jéegoogum dalul. waa kii du Moussa. ah yow li xew ba nga. Moussa ay Moussa. kii yow moo waxal di. mooy loo xew. Moussa loo xew booy. siis nagam. da nga ko amal. <laughs> dama gënt wala lan. waaw Moussa yow la des fii la garage. Moussa yow gis nañ la ba pare ngeen ne ko du génn nga toog. kañ nga tudd Omar. ni amuloo si. waaye tey saa yi Omar la. Ah, moo ñëw toog ni si fii ni amee la. mun na Amérique la jógee di. Amérique. Moussa moo la wax ne la jógee. nga gëm ko kii de moom si boppi koñ bi fii nii. Hmm. moment Thiès yi jël suma nomba ne Amérique la jógee businessman la la fii la dee indi moto nga jox ah su ko joxut nu maa def yow buroo maa dem Amérique gay dama ci bur yow fii man dama bëgg a joomi wala lan mooy <laughs> génnal nga toog te nga génn si gannaaw ki te nga xam ne gis naa la salaamaaleykum maaleykum salaam kii di Moussa Moussa la sa Moussa <laughs> nga ne naam la Moussa ya salaamaaleykum Moussa de moo nekk nii. sa Moussa la. yow tam xam Moussa. amewuloo kii moom daf fi dee ñëw amewuloo. man de dama doon gënta nag fu mu nekk eewu naa ne. boo amee Moussa yow it. haay Moussa sama ex la. bu baax. sama ex. kii. nga yàlla nag. nga rëcc. du ñëpp. Moussa doo génne suma gannaaw ngir yàlla boole. Moussa yow yow fu nekk yow sa numéro amul njëriñ bi. Omaram lan yow amuloo siixandoo. yéen kii bu mu leen waxee Amérique mu laaj leen normal. den ko gom ngeen jokko a gom ne ko ah, len tase mu ngi sanse sanse bu métti téye caabi moto mu ne la jógee jël suma nopp bu ma gësee mus nga dem Amérique gis moto boobu caabi bàyyi la moom moo def fanaan ci biir moto bi moo dee fanaan si biir moto bi ñu ko caabi mu dem di jël fekk laay ngeen ko jox seen nomba yéen tam façon ñi ñoo de yaa dëkk bi génnal nga wax ak gars yi fanaan si moto bi la boy déggoo si gannaaw ni kii jël mécanique seen oto yi ñëw teg fi jël yooyu noonu di dem si biti nag di firi jaaxaay si biti mu nekk fii di fen rek loolu la fi ne yow de yàlla ma dimbal yow ku nekkoon naay ba jox di ko yaa fa yow da nga gis man kii a ah, bu mu ñëwee ak oto bu mu dawal wala ñu ñu baal ñu da nga yow la bëgg génnal yow bon nga de. kii mécanique bu bon la. yow kii yow. yow bu ma tasee waatee yoo nga ooma. waaw sis. yow bu ma tasee waatee yoo nga ooma yow ku bon la. yàlla dina ko ponis su ma yeggee sa diri suma. yow sa nomba sista baalal leen ma rek ngir yàlla. ñëpp ngay fooyee nga rëccax. na sista baalal ma yéen fu mu nekk wax ngeen li a war a wax yëpp waaye dama leen naa ñaan ngir yàlla fi ñu leen fi nekkaa suñuy nawle yaa ngi understand fii workshop la soo ñu ngi dëkk fekk ay nit xam ne dañuy jox cër yow kii dinañ tasee maa ngi xaar ba nga tasee ma nga ooma. wala yaa ngi tàkkee ak maa dóor sax. Moussa. buy buy kii Moussa déedéet déglu ñëw déglu yow noppil yow waruloo wax dara fu mu nekk nii. Moussa Moussa hey hey xam nga suñu la wax nga dof dof te yow dofuloo Moussa yow lii mooy lan Moussa lii dañ la doon advice bi kañ ma lii laa la doon wax fii keroog mhm. waaye gis nga tey gàcce bu ñu indil fii tey xoolal Ndey Bossé ni ñu génnee di ñu xool. man di gis affaire yi yéen bëggul a keroog da nga faa <laughs> def la advice bi mu la advice. dimbale ak lu ma la wax yëpp yow dégguloo di ma la wax. waaye danaa gis loo ci nu ma dooree <laughs> nga tëdd. kon yow li nga doon fédéral yi ay américain semence américain nga. ma ne dama dem Amérique booy gaa caabi moto boobu sax delloo ko fa. demand from America. booy caabi moto bu ma la joxoon ah. delloo ma ko doo fanaanaat si. non Moussa. doo fa fanaan ba ba guddi. yow doo doon di eh. man from America. fan nga nekkoon New York wala. wala fan nga nekkoon. boobu warul. oh boy kii dafa dëgër fit boy bi laay wallaay. ba nga di lañ ko doon wax fii Naka? Yeah, cool. Yeah, you look so sexy in it. Oh, thank you. Still on the guy, cool. But your phone can boy, no, honestly, boy, you living be not your la la because your phone can be over cool, so what? Still on the guy, but yeah, tour be Mandela. Ndey. <laughs> No wonder boy, I'm not touring day, boy, then they over referred, boy. seetal sa smile bi <laughs> sa dimbalu mu ngi over nice wa yeah so mun naa wax ak yow just few minutes rek si a problème yeah ok enti mun ngaa ñëw nii yeah yeah boy si biir am na naka la ah. ah ok ba moytul diw bi de mu ngi noonu sa sa bu waaw waaw waaw balaa moo tuur loo gis aleykum salaam na ngeen def da naa ne ana suma moto bi sa moto bi bu waaw sa moto bi ah ok waaw waaw moo koy jël dem testé dem Moussa waaw waaw waaw yow bu ma doon jógee fii nga ne moto baa ngeen ñëw dem testé dem naa doon tebu am naa fa two hours ba moto baa ngi dem testing. non mi ngi ñëw dafa dem test moto bi rek. nekkul suma xel lu ma may loolu laa nekk di gis de because fii tey moom soo leen joxee seen moto suñ ko liggéey ba pare ñu dem mbumbaayee ko. dafa mel ni am na lu ma gis mu taxaw dafa mel ni loolu suma moto bi la de. xam naa ne dofu la daat boy sa waa ji mer na de daat suñ daat bi boy ah moto bi boy Moussa ba léegi ñëwul boy te ki nu ñu dem boy seeti ko boy boy nañ ko toog One day, honestly, boy, you're looking so sexy, boy. Cool like yourself, boy. You're cool, sir, boy. Thank you. But honestly, the world never seen that bini, boy. suma tour bi Musa la yàggul ma jógee si Amérique laa jógee Washington DC foofu laa nekk so dafa ñëw holiday tuuti nii ak sa suma doom yi eh? because dama am suma doom yi eh? tubaab lañ yaa ngi Amérique so dama ñëw vibes nii rek am some phone si biir Gambia comme nu nga dee defal comme Sénégambia ni after immediately from there maybe in few weeks America so nag am yaa ngi ko oh bi boy yaa ngi nice sa honestly non non bi laa nekk di nii boy mm-hmm. so si lu nekk yaa ngi yaa enjoy de noo ku gis nii sa honestly yaa enjoy abul wari dafay cool boy yeah so So la mun na am sa bi wala? Yeah, it's fine. Na arama del so dial bi. Okay. Wax ma sa dial bi. 5 5 22 22 69 69 Musa, yeah, mom ko. Sukural ma. Ah? La mom do So yeen fi tay ni ngeen fi nekk ni su leen joxe seen mo Waja su. Yow. Ah? Assistant waja. mais demal fale yow da nga ciy booy man dama jël sa numéro yow da nga ciy lii booy demal fale dama sa yoon dama sa yoon booy. bu sol ko demal fale booy. ah yow dama tas moto bi nga ne. booy booy dama fekk booy. booy yow yaa talagum moom am nga luñ la doon bi mooy ñaari yoon. Ah. ala booy di ma booy di ma lifin nii booy yow sa nekk du ko fekkee bi. dem nga reetaan nii booy Aliou booy. waaw daal du na bëj. daal du na bëj. ak kay kay ñu doon wax. booy demal fële nga maa woo ma xool nga xool demal fële nga maa bay.